wallahi ndeysaan ah waa assemblée asalaamaaleykum xam na ñoom ñu dugg. ah assemblée. dañuy commencé ni dañuy commencé capp cappal nii rek. maa ngi seen sama koroba ne. maa ngi koy seen ne. ah dugg nañ. Ah, ngi fees nag. gis maa la wax li tubarkal ah, fii mooy pencum ndawi réew mi. ne ko foofu mooy pencum ndawi réew mi. waaw pencum ndawi réew mi maa ngi bët yëpp nopp yëpp. Haji Malick Seck maa ngi lay ziar bu baax sama soppe bi sama xarit bi. man nag waa kii laa mere nu mu tuddati waa waa yeewi. waa yeewi mere naa leen torop mere naa leen torop. ak li leen réew mi jox lépp. ak li leen réew mi defal lépp. am ñu lu def dem ba dernier moment ñu toog di xëccoo ko xulo ko ngaay ah da ngay am loy daw nak vraiment mënoon na gëna rafet ah nit da ngay am looy daw am am askan wi fexé def leen ba ngeen nek presque ngeen am lo xamné musu leen ko am ah. opposant opposant ci Sénégal musu ko am ah. ngeen am ko dem ba dernier mois di di di xulo ko ngaay ah waaw ngi tiss waw mais xool kaw public ah day am public. waaw. de public. leen porte yi depuis euh, place publique yi depuis quatre heures.